l'urbanisme waxee nekk ku jaayee lotissement war nga bàyyi 30 pour cent yoo xamante ni loolu lañ koy jagleel waaye bi ñu demee ba nit ñi commencé dëkk dafa jël lotissement bi ñu tëggaat ko yóbbu ko 376 euh, euh, logement beneen procès lañ ko defaatoon ci ci affaire yoon yi ak ci assainissement bi rapport d'expertise baa ngi nii président tribunal de dakaar moo euh, président tribunal hors classe moo ko demandé benn expert ñu fay ci suñu xaalis rapport expert bi def ne moom ci assainissement bi daf cee war a def 400 millions parce que assainissement bi ñu defal baaxul ndax dafa jaawale jaxase ndoxu foos yi ak ndoxu taw yi te loolu yoon da koy tere def ko de voirie bi itam tali yi dara baaxu si daf cee war a def 600 millions léegi nag ñun ba ko rapport bi jiiñee naka dafa war a joxe un milliard pour defaraat loolu moo tax mu wëlbatiku di ñu songaat nous ne serons pas les dindons d'une farce administrative moom mënuñu tooñ nangu lu ñu moom ba pare ban ñoo fay ba pare nee naa dañuy yóbbuwaat ci yoon duñ ko nangu te de toute façon loolu xoqatal la rek et ça ne passera pas